Euh, da ko ñaanoon yàlla sunu borom ngir am ay maqaama ak daraja ak doon mu rasul ak mën a ràmmu jaam ñi daraja yooyu yëpp nag bi mu ko bëggee euh, mu ñaan yàlla sunu borom mu yeggale ko ci euh, yàlla sunu borom nangu ñaan googu fekk boobu mi ngi tuuba nangu gi sax moo tax sëriñ bi génn Touba dem Mbàkke Baari kon sababu baatin sababu biir bi mooy xemmemteef yooyu nga xam ne sëriñ Touba daf ko bëggoon te mënu ci woon egg lu dul dafa jaare ci tukki bi te tukki bi dafa tasante woon ak fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar mu tasanteeg tak sababu zahir mooy sababu biti bi nii mooy tubaab bi gis na ko euh, bi waajuram génne àdduna woote na yoonu murit commencé na am mbooloo mu ngi jëm jàppale nit ñi di leen gindi teg leen ci siraatal mustaqim nit ñi di ko seet si ku ñëw rek jébbulu nit ñi commencé bari tubaab bi defee ne dafay jihaad contre moom li mu foog ne dafay jihaat contre moom ak euh, nit ñi nga xam ne dañ daan def ay rapport di boole loolu yëpp daje si tubaab bi tubaab bi convoqué ko alors bi mu ko convoqué fekk sëriñ bi génn na Touba dem sañc Mbacke Bari euh, jóge Mbacke yi di wuyu ji convocation bi ginnaaw bi mu ci amee ndigalu yàlla tasante ak tubaab bi si tund jeewal ñu jóge jeewal sëriñ bi fanaan fa xëy jaar kokki jóge kokki dem Louga jóge Louga dem Ndar après ñëw Dakar Euh, jóge dakaar dugg ci bato bi ñëw bu ko Gabon mu am fa juróom-ñetti at loolu mooy sababu màggal gi. léegi nag euh, fii ci daara Serigne Mourtala mu Serigne Saliou euh, tradition boobu moom la ñuy continuer di ko di ko saxal saa yu ñëwatee ñu def ndigalu Serigne Touba loolu jaare ko ci suñu jëwrin ji. fii daal si li nga xam ne miin nañ ko fii mooy danañ ko taxawal kéemtu lay kàttan tëral ko ci ne ko sëñ Touba bëggee woon moo danañ def ay bernde. Eh, sant ci yàlla sunu boroom eh, danañ jàng alxuraan danañ waxtaan ci diine loo xam ne nit ñi buñ fiy jóge mu doon seen yóbbal ndaxte màggal gi xam nga eh, ñaari façon nit mooy ñëw am na koo xam ne soo ko joxee mu lekk mu naan dina kontaan waa am na koo xam ne boo ko joxee xam-xam wax ko Serigne Touba lii la bëggoon lii la naan def moom tam dana kontaan bu ko defee fii ci kër Serigne Mourtala keppaaram ñaari bernde yëpp mi ngi fi mais li ëpp solo mooy sëñ bi bëgg na képp ku fi ñëw booy dem lu mu gàtt gàtt nga yóbbaale dara ci bind Serigne Touba ngir mën koo doxee. Euh, fu nekk lañ ko daan defee waaye comme Serigne fàllu moo ko woote woon fii Touba woote bi ànd ak barke donc kon ñëw bi ëndaale na lu bëri. socialement dafa baax parce que am na retrouvaille buy am diggante yow ak sa sëriñ ngeen gisante nemmeekonte ah nga nga ziyaar ko tëbbuwaat ci moom dégg nga sa diggante ak sa borom ak Serigne Touba moom tamit mu sala jox na leneen lu bees nga nga nga yokk yeesal loolu beneen dimension la beneen bi mooy côté économiquement gis nga dëkk bi nu muy mel ah, bu ñu ko xoolee si côté yaakaar na euh, spécialité yëpp gis nañ ne màggal gi faveur la pour réew mi donc xam naa ne loolu mooy euh, li nga xam ne mën nañ ko ci jëlee buñ ko tasee si Sénégal yoo euh, dana baax ci ci fànn yëpp incha allah. سفر هماني على ما هم مع الحس والسفر